moo mooleen won kanam safara moo leen won ndeyjoor mbéng mbooro moo leen won gauche arbitre la lay wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ nee na leen laaj na ay juge am ndax pare ngeen ay jugeem nee na ko pare ngeen ñu leen di fàttali ñaar ñii Amet la Rose leen boole moo tax ñu war a mën a bëre combat la tey mu nekk ci journée Momo production Mbengue Mboro Safara Mbengue Mboro Safara ñoom ñaara ngay xeex Mbengue Mboro ñu ngay xeex mais eh, Mbengue Mboro mooy Safara dara Mbengue Mboro Safara Mbengue Mboro ngay door mu ngay door mu ngay door mu nga door Mbengue Mboro ngay door waaye door ya waaye safara nga ne tek di dégg ne naa leen safara amul xalaat <laughs> nga Mboro safara nga Mboro safara Mbengue Mboro safara Mbengue Mboro nga Mboro Safara Mbengue Mboro Safara Mbengue Mboro Mbaye Diop Safara Mbengue Mboro Mbaye Diop Safara laa ñaari xale yi dañoo am règlement de compte xanaa arbitre tàqale na leen nga Mboro demal naani nga mbooloo ngay naani nee naa leen bi mooy combat spécial léegi mbooloo ak safara léegi mbooloo ak safara léegi mbooloo ak Mbaye Diop safara ñaar ñi seen combat bi dañoo mel ni ku am règlement de compte nee nga Mboro Mbaye Diop Safara nee nga Mboro Mbaye Diop Safara touché na ko nee nga Mboro Mbaye Diop Safara ñoom ñaar Mbaye Diop nee nga Mboro wee Mbaye Mbaye Diop Safara Mbaye Diop Safara daan na Mbaye nga Mboro Mbaye Diop Safara daan na Mbaye nga Mboro Mbaye Diop safara daan na Mbengue Mboro nee na moom la Mbaye Diop safara nee na moom la Mbaye Diop safara nee na moom la Mbaye Diop safara nee na moom la ah mooma jaaxal waaye poojam laal na suuf de waaye lii bu suuf loolu na ndeysaan Mbaye Diop safara ngay bajantiku Mbaye Diop safara ngay bajantiku moy jo safara ngay bajantiku mengu mboro nga mene ku joomi mengu mboro nga mene ku joomi maa la ko wax ndeysaan Matar Ndiaye arbitre ba dugg na ca aménageur euh, ba dugg na ca géew ba di consolé mbërëm ndeys xoolal ma waa parcelles yi nee nañ fii nee nañ fii mooy fii Bamba Gabamba